suuratul araaf lii mooy saarul araaf saar la woowu màkkatal mukarama la wàcci wala maawu tafsir yëpp d'accord nañ ci am nañu ci génnee juróom-ñetti aaya wala juróom yi wàcc madina wasalhum anil qaryati ca la commencé ba ca juróom-ñetteelu aaya ja wala ba ca juróomeel ja saar wi ñaar téeméeri aaya ak juróom-benn boo calculer ay baatam ñetti junne la ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom trois mille trois cent vingt cinq soo calculer ay xarafam fukki junne xaraf la ak ñeent saar wi nag moo njëkk a wàcc anaam li dal anaam moo ko dal tamit anaam lépp dafa wàcc ndoor wenn yoon saar wi di araaf dafa wàcc ndoor wenn yoon ba mu wàccee yonent bi sallallahu alayhi wa joxe ndigal ne nañ ko teg ci gannaaw anaam ndax anaam dafa ñëwoon di mbëmbëstal ay qissa lu mel ni tudd suñ tàmbaleeg bind ci huwa allazi xalaqakum min tiinin tudd na tamit alkande maas yu passé woon ci bañu weddee seen yonentu ya fi mu waxee ne kam ahlëk naa min qablihim min qarnin yooyu yëpp tudd ak mbëmbëstal la saar wi di araf dafa ñëw nag li mu ijmaaloon yëpp mu ñëw tafsil ko tudd xisaab yonantu yàlla aadama ak bindam ga fi jaar ak iblis tudd yonantu yàlla noox ak fam jaar ak nitam ña yonantu yàlla huut ti yàlla saalihu yonentu yàlla luut yonentu yàlla suaybu ñii ñëpp kenn ku ci ne ci ñoom fi nga jaar ak sa nit ña ba ñu mujj xal ak ko lépp saar wi tudd na ko saar wi nag yàlla dafa ko xubbee ci code ay code man ngaa wax ne kot bi juróomi xaraf la dafa am ci portable yi portable boo xam ne dañ koy de décoder la koy décoté nag juróomi chiffre lay doon am yoo xam ne ñeent am yoo xam ne ñett am yoo xam ne benn alquran tamit dafa am ay code am na ci code yoo xam ne la koy ubbi benn lay doon lu mel ni xaaf ak saat am yoo xam ne la koy décoté dana mat ñett lu mel ni alif laam miim am yoo xam ne la koy décoté dana mat juróom lu mel ne xaa miim xayin siin xaaf ak kaafe yaa ayun saat bii tamit li koy décoté alif laam miim saat la ñeent ci la ko yàlla côté loolu nag ñu ne mooy secret téere bi donte le borom xam-xam yi li ko doon ca saxaaba ya ci jamono jii kenn ku ci nekk la la ca yàlla yëral yaa ngi ko koy firee Ibnu Abbas nee na li alif laam miim saat ana allahu ufassilu man maay yàlla ki nga xam ne dinaa leen biralal mbir yi am na faneen fu mu wax ne mooy firi allahu ana allahu alamu wa ufassil man yàlla maay ki xam ki nga xam ne maay fasale mbir yëpp ba tey ñu ne alif lam mim saat am na ñu gis ne ngëñ la gu yàlla gëñ ci ay turam xataadatu ne tur la ci turi alquran yi ismun min asmail quran sayduna xasan ne ismun li suurati tur la ci turu saar wi imaamu suddu yu ne lenn la ci turu yàlla yi moom la saar wi composé lu mel ni musawir al musawir mu ne moom lay junji ndax boo gédee musawir am na saat musawir am na miim am na alif am na laam boo jëlee tamit alif laam miim saat ñeent yooyu yëpp mu ngi ci su ko defee abu aliya dafa ne alif gi dafay junji turu yàlla bu bàyyee ci alif niki allahu miim gi dégg nga dafay junji ci miim niki majid saad gi dafay junji bépp turu yàlla wu tàmbalee ci saad niki sadiqun ak sabuur ñenn ñene daal alif lam miim saad ay xaraf lañ yoo xam ne yàlla moo ko côté moom rek moo ko moo ko mën a décoté ay xaraf lañu xuruful muqattaatun istafara allahu bi ilmiha te loolu nag wa hiya sirruhu fi kitaabihi al aziz ñu bëri loolu lañ wax dañ ne daal ay xaraf la yu yàlla daggante te moom kott mooy ki jagoo ak xamam loolu tamit dafa bokk ci secrétaire bi ñenn ñi ne alif lam mim saat mooy ismul azam dafa dafa ay maanaa yu bari bana yu tektale yalla ci ak bindam ak ci namelam kon yooyu boram borom xam-xam yi wax nañ ko ci bismillahi sos nama ma sama wax ci tuddu turu bur bi arrahmani bur bay xewalaa kon bepp mindeef ci aduna bi arrahimi bur bay xewal ku ko ci alif lam mim sad yàlla xam li mu namm ci alif laam mim saat kitaabun moom de téere la kitaabun téere bii bu neexee nga def ko xabari mubtada juñu xasaf mubtada ma nattaleem huwa bu neexee nga def ko xabari mubtada muñ xasaf mubtada ma nattaleem haza moo tax nga ne kitaabun téere bii unsila wàcceef na ko ilayka jëm ci yow sayduna muhammad lu tax ñi wacce ko li tum fira ngir na nga war ni nga waré bi ci téré bi di alquran ndax mom alquran wa zikre ak waré la lil mu ñeel way gëm ñi wacce nañ ko ngir nga waré ci nak waaye ngir bëgg nak, fala yakun bu mu nekk fii sadrika sa dënn bi harajul aqat bu ci ben qat qat nek nak yeen ni ñi war ittabi'u nga xamne un la ilaykum jëm ci yeen mi rabbikum bayiko sen borom tamay alquran wala tattabi'u bu leen topp min dunihi lu duhul yàlla ci ci lim ñuy tegtal ci alquran bu leen topp ko dul yàlla awliya ngeen def leen ñi ay xarit di leen topp xalilan aji néew la maa tazakkaruna seen ak waaru de da nga koy taawil masdar seen ak waaru ak a néew wa kam min qaryatin bari ñooñu dëkk ëllëg naa namm nañ leen a xalak fa jaaha dikkal na leen ba sunaa suñu mbugal bayaatan ci waxtu guddi awhum wala ñoom sax xaayilu na way nelaw lañ nelaw yu bëccëg mi ngi bàyyi ko ci xaylulatu fa maa kaana nekkut daawaahum di seen di seen wax is jaahum bam leen dikkalee ba sunaa suñu mbugal illa an du dul ñuy wax jumla ji mooy xabar mooy mooy mooy ismu kaana ji daawaahum di xabar juñ jiital lu dul ñuy wax ne naa naka ñun naa nekk nañ zaalimi ne di way tooñ yàlla ne fala nas allan na danañu laaj la si nañu nga xam ne ursila yónnee foofu na ilayhim jëm ca ñoom wala nas allan na walaay danañu laaj mursalina way ñun yónni ña sax ndax jotal nañ fala naqusan na danañu nettali alayhim ci ñoom bi ilmin ki nettali goo xam ne xam-xam bu wér lay doon buñ bu bàyyi ko ci ñun wa maa kunnaa nekku ñun yàlla gaayibina di way fàddu wólis ko tal ak yonumtu ya de lépp xam nañ ko wal wasnu mandaxama ci jëf yi yu baax mbaa yu bon yow ma isin bisab keroog la du yowmal qiyaam de muy xabar ja bu la neexee nga def ko muy saraf ne maanaam wal wasnu bi maanaam mandaxame ci peese jëf yi alxaqu dëgg la de bu la neexee tamit yow ma isin ji di xabar ji alxaqu nekk di sifa nga ne alxaqu dëgg ju sax la waaye lu ci mën a am fa man képp koo xam ne saqu la diis na mawaasinoo lañ ko peeseel maanaam mandaxam yañ ko peeseel ci jëf yi yu rafet fa wulaay ko yooye gaay hum ñoom al muflihuna ñoom a ji way texe na ja wa man képp koo xam ne xafat xoyof na mawaasinoo lañ ko peeseel ci ci lu ñaaw de nga de mu nekk ku fuulaay ko def na nga xamne ne wa pertal nañ sum sen bop ndax mu ci gi ñu mu ci safara ndax ñoom bi ma kan so lo xamne kon nañ yeeg li mun di ko tivi bi ganang na suñ kaawtiif di togn ga nak moy weddi ga rek moy li mun di di weddi ayat na suñ kaawtiif yi kon ayat yoyu sama borom subhanahu wa ta'ala mi rabbul izzati wal jabarut mi ngi ci mbambastal ne dafa wàccee alquran ci sayduna muhammad alquran nekk jëmmi waare alquran nekk jëmmi yërmande ñeel jullit ñi yàlla nag sant yonent bi ne ko waareel ci alquran bul bul bul bul ragal dara falaa yàqun fi sadika harajun mooy jotal gi nga koy jotal bul ci ragal mukk pour ñu weddi la waxal sa nit ñi ne nañ wàcc nañ topp liñ wàccee ci ñoom muy alquran ittabiu ma unsila ilaykum rabbikum wax leen ne wala tabiu min dunihi awliya bu ñu topp ku dul yàlla di ko jàppee ay xarit di méngoog ñoom ci seen mooy gata mooy xiram yi ak lañ la ña koy rafetalal waaye nag sa nit ñi daal seen ak waaru néew la lii xalilan aji néew la maa tazakkaruna seen ak waaru dafa idgaam ko jëneen taagi ci morom maa tatazakkaruuna la woon mu jël taagi idgaam ko ci zaayun gi yàlla tofal kenn bari na ñooñ dëkk boo xam ne su ma leen na xalak sama sama mbuuxal ma ñaari waxtu lay ñëw benn mu ñëw guddi fekk ña ngay nelaw mbaa mu ñëw bëccëg fekk ña ngay sest di nelaw nelaw yu bëccëg ba mu leen dikkalee nag bu ñu leen wooyee laaj leen waaw yéen lu tax lu ngeen neexoon ba lii dal leen dañuy wax ne ñun daal dañoo nekkoon rek di tooñ yàlla daal jaamuwuñ ko woon ci dara yàlla ne ñu jotalal ñu danañu ñu laaj ñañ yónni woon ca ñoom waaye ñooñu ñu yónni woon tamit dana leen laaj kon aaya ji mi ngi xamle la yàlla gën a kam mais dana laaj laaj ga nag lu tax mu koy def ngir maanaam saxal ak tontu loolu kon wax na ko moo tax mu wax ca ne euh, euh, aw hum qaa'iluuna fa maa kaana da'waahum iz jaa'ahum ba'sunaa illaa an qaaluu innaa kunnaa zaalimiin te loola mooy ñooñ dëkk ba wa kam min qaryatin loolu wax ju mel noonu wax na ko ci ayaat yu bëri wa kam min qaryatin ahlaknaahaa fa jaa'a ba'sunaa bayaatan aw hum qaa'iluun lu mel ni ayaat yooya ci alquran dafa bëri bokk na ca fa kam min qaryatin wa laqad istahzi'a bi rusulin min qablika fa haaqa billadhiina saxiru minhum maa kaanu bihi yastahzi'uun fa kam min qaryatin ahlaknaahaa wa hiya zaalimatun fa hiya xaawiyatun alaa uruushihaa wa biirin mu'attalatin wa qasrin masiid bokk na ca wa kam ahlaknaa min qaryatin batirat ma'iishatahaa fa tilka masaakinuhum lam tuskan min ba'dihim illaa qaliilan wa kunna nahnul waarisiin kon yu mel noonu ci aayaat yu tegtala yooya bëri na su ko defee tamit nag ba ñu ñëwee ndeysaanam nag ñiy saalik ne daal ñun de dañoo weddi woon yonent yi rek moo tax lii dal ñu dal ñu yàlla na ne na fa la nas'alanna allaziina ursila ilayhim wala na mursaliina lu mel noonu wax na ko ci aayaat yu bëri yawma yajma'u llaahu rusula fa yaqulu maa saa ujibtum ak wa yawma yunaadihim fa yaqulu maasa ajabtumul mursalina lii mooy ñañ yónni woon lañ lañ tontu lee mooy ñañ yónni woon ca ñoom lu ñu wax ñoom tamit kon yooyu yëpp ay aayaat la yoo xam ne benn bu ca nekk dafay dëggal moromam ma rekk su ko defee nag màndaxamat danañ peese nit ki ay jëfam buñ peesee sa lu baax la xëpp sa lu bon nga dem jana noonu ñuy peesee jëf yi ni la ñuy nit ki yonent bi nee na yowmal qiyaam danañ andi nit innahu la yaati arrajulu al azim assamin yowmal qiyaama laa yazinu inda allahi janaahu buudatin mu ne yowmal qiyaam nañ andi nit koo xam ne ku ponkal ku duuf waaye bañ ko peesee moom ci boppam sax matul poids bu day mbaggam yoo kon nañuy peesee jëfi nit ñi noonu lañuy peese nit ki ci boppam nit ki bu waree texe rek day diis bu warta texe rek dafay xoyaf nit ki bu warta texe tamit jëfam ju baax dafay xoyaf mu mujj tamit dem safara nit ñi nag ñetti xaaj lañ ñaar ña moom la alquran tudd benn ba xaddiisa ko tudd ñaar ña ku njëkk ka mooy almuttaquuna mooy yu njëkk ña ñaareel ba mooy Ah, manam al kufar. ñi nga xamne dal dañu jaxase al mukhlitun am ca muttaquna moy ñoo xamne bañ leen pesale seen lu bax la hepp seen lu bon la bañ sété seen poids sax kabair amu ca bakar yu mag ñooña dañ leen wax duggu leen aljanna rek mu jeex yalla nañ ca bokk ñi nga xamne nak ñoom dañoo ay kufar bañ leen pesale seen lu bon la moo ëpp lu baax la parce que amuñ lu baax ñu ne dugg leen safara mu jeex amal la fi na xalatu nag ñoom sunna moo ko andil mooy ñoo xam ne dañ leen a peeseel dégg nga de bañ leen peeselee ci baskil boo xam ne bu leer naññ la seen yu rafet ya seen ñaaw ya peese ko ci baskil boo xam ne bu bu lëndëma lëndëm la su fekkee seen yu rafet ya moo gën a diis lum tuuti tuuti ngi dem aljana su dee seen lu bon la bu gënee diis lum tuuti tuuti ñu dem maanaam safara lu dul ba yàlla jéggal leen waaye jéggal ga nag mooy xàq yoo xam ne yàlla lañ ko tooñ su fekkee dañ koo tooñ seen morom mi nit nag dañuy jël seen lu baax la fayee ko gaaya bu jeexee te jeexu ñu jël lu boni gaaya këppal leen ko ñu dem safara mooy atadruuna mal mufallas kon ñooña ñooy ñi yàllay wax baskil ya nag ñaari palaat la palaat bu ci nekk rek xëpp na diggante asamaan ak suuf ndaw baskil yu rëy dafa neex baraw kawar sax boo koy tegee mën naa génnee poids ba kawar suñ baskil yi mënuñoo génnee poids wu kawar de baskil ya nag àllaaxira dafa wuteeg àdduna àllaaxira bi daan mooy féete kaw àdduna bi daan mooy féete suuf bi xooy fay féetee kaw moo tax mu ne fa man saqulat mawaaziinuhu dafa diis maanaam ci lu ci lu baax fa wulaay ko muflihuna mu jeex su boobaa kookaay dem aljanna mu jeex waaye nag képp koo xam ne nag moom lu baaxam moo xoyof kooka mu mujj dem safara wa man xafat ma waa mawaasinuhu fa laag lina xasiru anfusum bi maa kaanu bi ayatinaa yutlimun kon aayaat yi loolu la doon tegtale aaya yi tegu ci yàlla ne wala xadd makkannaakum wallaay sa dëgg-dëgg dëgëral nañ leen yéen doom aadama yi fil ardi ci suuf wa jaal naa def nañ làkkum ñeel leen fiyaa ci suuf maayisa palaas yi dunduwaay xalilan aji néew la maa na li ngeen di sant yàlla ak li leen yàlla defal dafa rëy wala xadd xalaqnaakum wallaay sa dëgg-dëgg dundoon nañ seen bàyyi aadama suma kum top ñu melal len yeen ñi ngeen nek seen diggu yaay seen diggu bayyi suma qulna top ñu wax lil malaikati ñal malaaka yi gëna biñ bindé adama ne usgudoo sujootal len yeen ñepp li adama ci ñal adama wala usgudoo sujoot len li adama fa wala adama sujoot ba sujootam lunku la fa sajado sujoot na ñom ñepp illa iblis nudul iblis lam yakun nekut min asajidin bokku ci way sujud ña qala sama borom ne ko ma manaaka an lan mola tere alla tasjuda ba nga ñak sujud is amartuka waxtu mola digale qala mune anna man khairun ma gën min wu ci ki may sujud lo di adama lutax khalaqtani bind nga ma min narin ci safara ta leer la wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban ta lendum la qala sama borom ne ko fahbit si pekul moy waccal minha ci ci ci aljana ñine minha ci juróom-ñaareeli asamaan nga génn ci malawul a'la famaa yakoonu yellut làkka ñaan la an tatakabbara ngay rëy rëylu fiihaa ci juróom-ñaareeli asamaan wala fiihaa ci aljana faxru génnal nga génn maanaam malawul a'la innaka naka yow mina saaxirina bokk nga ca ñu torox ña xaala moom iblis ne anfir nii yéexe ma yow yàlla ilaa yawma yub'asuuna jëm bis bi nga xam ne def na dekkil nit ñi xaala sama borom ne ko innaka naka yow minal munzariin bokk nga sa ñu ilaa yawmil waqtil maalum jëm ca walak bufta bu njëkk ga de te mooy ba waxtu wuñ xam wa dafa bëggoon a nax yàlla ci wax yàlla nag gën koo yeewu ndax su fekkoon ne dafay toog ba ñu dekkil nit ñi kon dootu deexati yàlla ne ko nag bu ñuy wal bufta bi wal bu njëkk ñëpp war a dee foofa ngay deexee te ko defee nag xaala moom iblis ne ko fa bi maa awayta nii ci sababu sak sànk yow yàlla ñeexal ma te ngir aadama mii ak njabootam gi maa lay xamal ne la aqu dan na wallaahi danaa tërlu lahum ñaan leen ñoom doomu aadama yi siraataka sa yoon yi mustaqima wu jub kocc wi danaa def def ay cël yu bëri taxaw ca yoon wu jub ku ñëw ma ne ko du fii ñoom ñëpp danaa leen dévier su ma la aateenuhum topp wallaahi danaa dikkal leen min bayni aydihim seen kanam wa min xalfihim ak seen gannaaw wa an aymaanihim ak seen wàllu ndeyjoor ya waxaan samaay ak seen wàllu càmmooy ya ñaari place rek la tuddut mooy kaw ndax man mënta dox diggante yërmande yàlla ak jaamab yàlla bi waxut suuf ndax dafa toroxlu dafa màggal boppam du toroxlu mukk aadama di ko nekkee ci wàllu suuf mu teg ci ne ko walaa tajidu doo fekk ak sarohum la gën a bari ñoom saakira na ñuy way gëm maa wax lii xaala sama borom ne ko sama yoon nekkut ci uxruj génnal minha ci aljana minha ki juróom-ñaari ah, asamaan yi ma nekk ku ñu ŋàññi ku ñu sànji ma ma ma ma duxuuran mbir mu ngay nekk di kuñ soril yërmande yàlla waaye maa ngi lay xamal ne li man tabi ak ñeel na képp koo xam ne topp na la minum ca ñoom istirnaaf la waa maa ngi gëñ ne képp koo xam ne topp na la la am la anna na da la am la anna danaa feesal maanaam la am la an danaa feesal jahannama safara danaa feesal safara min kum ci yéen yaa ñoom aj may na mbir mu ngeen nekk mboole seen xaala sama borom ne nag wax sama borom ne yaa Adama yow Adama uskun dëkkal anta yow laa wax wa zawjuka ak sa soxna moo tax mu mu feeñal anta ji da ko ci bëgg a xataf dëkk leen aljana te aljana bu ngeen dëkkee fukk laa lekk leen ci aljana min na situma fu leen neex waaye nag wala baa bu leen jege haadihi shajarata gile garab bu ngeen ko jegee fa takuuna sabab soosu da ngeen mujj mina zaalimiin bokk ca tooñkat ya fa waswasa jax-jaxal na lahumaa ñee leen ñoom ñaar shaytaanu iblis li yubdiya ngir na feeñal lahumaa ñee ñoom ñaar maa wuriya li nga xam ne suturalef na anhumaa ki ñoom ñaar min sawaatihimaa seen awra ya wa qaala moom iblis ne leen maa nahaakumaa terewul leen rabbukumaa borom seen an haadi sajarati walis gi le garab illa an takuuna lu dul sib ngeen nekk rek mala kay la di ñaari malaaka aw takuna wala ngeen min minal khaldina bokku ci way biir ña te munu leena xam ñaar yi le loolu da ngeen lek garab gi wa qasamuhuma gëñal na leen ci yalla mom iblis ne inni naka man la minan nasina bokku na ci way birnya, biir ña lakkuma ñeexal leen fa dallahuma sippi na leen wali sen waccu waya bi hororin ci ay hor fala ma zaqa ba nga xamne lek nañ asirata garab ga badan feñna lahuma ñala ñom ñaar sawatuhuma sen awraya ya ñu jakarlok mom kenn ku ni jakarlok sa awraay morom wa tafiqaa commencé nañ min afaali shuruu yaxsifaani di tay alayhima seen kaw min waraqati jannati ci xobi garabi aljana ya ngir mu suturaal leen wa naadaahuma woo na leen ñoom ñaar rabbuhuma borom seen ñoom ñaar ne alaman hukuma ndax terehuma leen woon antil kuma shajara ci seen garab googu yéen ñaar ndax terehuma leen ko wa aqul lakum wa aqul ma wax lakuma ñeel ne leen ina seytaan naka seytaane hadduwun noonu la mu bulun euh, ak nooneel lakuma ñeel leen xaala ñoom ñaar ñu ne rabbana yow suñ borom xalam naa ñun de toon nañ anfusanaa suñ bopp wallahi wa in lam taxfir soo jéggalu wa in lam taxfir boo jël naa ñeexal ñu wa xam naa nga yërëm ñu la nakku nan na danañu mujj mi ngal xaasiri ni bokk ci way perte ña xaala sama borom ne ihbitoo wàcc leen aadama ak hawaak lépp luy njaboor ci seen digg yi wàcc leen baax du ko mbir moomu leen ci yéen naa duwu noonu lay doon li baax di ñeel ci lenn yu di ngeen dañ di tooñante di nooñante waaye walakum aji nekk la ñeel leen fil ardi ci suuf mustaqarun palaasu saxuwaay wa mataawun ak palaasu yóbbulwaay ilaa hiin jëm ba diiroog seen diir rek ngeen war a dee xaala wax xaala wax na moom sama borom ne fiihaa ci suuf tax yow na ngeen di dund wa fiihaa ci suuf tamutu na ngeen di dee wa tuxrajuna def na génne leen ñëpp min haa ngeen tukkee koo ci suuf kon aayaat yooyu sama borom mbëmbëstal jaaroon na ci lu bari ci ay aayaat yu ko jiitu woon ca baqara jiitu woon ca ala imran moo tax ma jaar ci jaarab gaawal ci mbëmbëstal ko aadamaa ngoog ba ko suñ borom bindee roof ca moom rooxu gannaaw ba mu nekkee ñeen fukki xat di ban bu tooy ñeen fukki at ban buy keleng-kelengi ñeen fukki at ban bu ñu mooñ muy téeméeri at ñaar fukk loolu sax moom la yàlla gendeeku ci nit ku soqeekoo ci moom ñett ñeen fukk ngay am ñeen fukk toqantal ma niyu ñeen fukk lumbu dereet ñeen fukk aw suux aw roox door a ñëw kooku mooy hal ataa alal insaan xiinu mina dër lam yakun shay'an mazkuran su ko defee nag yàlla nag roof ko roox mu jug taxaw man lépp mu dox mu roof ko xaqiqatul muhammad yooyu mu xam lépp yàlla ne ko ku xam lii sa mooy nga xamle yaa Aadama kon am bihum bi ba jàngalal malaaka yi malaaka yi nag bañ leen jàngalee yàlla nag digal leen ne leen su jootal leen seen professeur bii di Aadama su joot ba su jootam lunku la mooy bi doomi Yaquba yi su jootaloon seen mbokk ma Yusufa ci inni raaytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamar raaitum li sajidina ñu ne déedéet sujjóotal leen yàlla aadama nekk di seen qibla ngeen dàq ko fekk aadama fu mos toog rek da gis malaaka yi wër ko mu laaj yàlla tax ñu wër mu ne ko xaqiqatul muhammad bi ma def sa ndiggalee tax mu ne ko kon toxalal ma ko defal ma ko sama am nday bi ni koy xoolee di ca bànneexu ma xool ko di ca bànneexu ba muy dem mu dénk ko siisa moom la maam xalifa ne huwa siisun wasiyu man kaana fardat haythu kaanat tu amanil abnaaw mu ngoog ñi koy doonante Idrisa ba ci moom lay ñëw ba ci noox ba ci Ibrahima ba ci yonentu yàlla Moussa ba ci yonentu yàlla Ibrahima yonentu yàlla Isa ba ci Abdullahi mu jox ko sayyidatuna Amina mu joxaat ko sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa nag sujjóot gaa ngoog ñëpp ba mooy Iblis Iblis rëy jàpp na ko. yalla ne ko ana lan mo téré nga sujjoot li nga xamné ne la ko digal mu qiyas qiyas ci ulama wa usul moy lu xamut yah nga qiyasal ko ci lu xam yah ngir niroo giñ niroo ci illa waye yah nag bu xasee qiyas do tud wirati yalla ne usjudo kon xasse qiyas do tud baati mom dafa ne ngi ma bind manam ya yow rek yaa ma bind bind ko yow rek lañ wara a yàqule nga yax bu xasee am qiyaas dootu wérati qiyaas ga timit li ko ko yàqal dafa xool ki cosaanam ku xool ko cosaan mënu la yàq mënu ñàkku yàqule ne ko yaa ngi nii cosaan li nga ma bindee moo gën for li nga ko bindee yaa ma bind ci ci safara muy leer moom nga bind ko ci ban muy lëndëm naka lay ban di sujjootalee lëndëm kon nit ki bu xoolee ci cosaanam rek ta ñàkk yàqule motax muné ko khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin kon ku fi man gor la man sa tab diw ak diw la da nga yàqule juddu bu rafet ken gënu ko def golo mam ak maam mataar ak baye ak yaay yeb golo lañ way ken gënu ko ñaaw kon timit juddu bu rafetee te yow baaxoo du kon nañ bayi yoy di ko iblis nak yàqule na ci ñett Mom, xëtt na ndigalal yalla yalla ne ko ma manaka allah tas amartuka ya kon yalla digal nako mu bañ fofa yaqulena benen bi yalla ne na lan ma manaka an tasjuda li maa bi yadaya li nga xamne mako bind ci sama kartan lutax tax ko kon ñak na magal lu yalla magal lu yàlla màggal ku ko màggalul yàqule waaye tamit yàqule xaat dafa génn mbooloo lu ñu too xarxul jamaa te ku génn mbooloo da yàqule yàlla nee na ko maa laka allaa takuna maa saajidiina kon ñetti yëpp benn bàkkaar moom ngeen a jur ñetti bàkkaar xatt na yàlla génn na mbooloo ñàkk naa màggal lu yàlla màggal ba mu yàqulee nag muy set ku muy yàqal mo xamé melo mata moo tax bahut ab këriñ sering bulur kering, kering sëriñ bul wut këriñ këriñ ba pare di hut kum lakale iblis mo wur na ko day lak mo ne mu ngi wut nag kum lakkaale ci mbugal ma tax mu la lahum siratal mustaqim fure nak nak nag ñu nday jor ndeyjoor càmmooy barbak baag fecc maag sàngara saag lambu jak yépp mbalu iblis la yalla ne bëggen ko topulé nak iblis demal yaa ngi ñu la topp ñëpp ci doomu adama boo lëggee la am la anna jahannama minkum ajmain yéen ñëpp ma boole leen fecc feesale leen safara sama yoon nekkut ci kon nag demal kon iblis a ngoog aadama nag ba ko yàlla bindee fa koo nelaw loo ca faar ak càmmooyam nga yàlla rocc ca benn bind ca xawaa moo tax amul tur li annaha xuliqat min min hayid mu xeewu rek sopp ko bëgg koo teg loxo malaaka yuuxu ko ne ko xataa tu addiya mahraha fa qaala wa ma mahruha luy canam ñu ne ko mooy nga julli ci yonantu bi ñu ne ñetti yoon ñu ne ñaar fukki yoon moo tax ñu ne borom jalaal ne waaw dafa bokk ci sartaay can mu nekk xalal ñi man koo jariñoo ñu ne déedéet loolu mooy sariyaab yonantu bi waaye bu ñu seen sariyaa yeneen yonantu yi ya, loolu du ca sarta te yeneen yonantu yi yonantu baa ngi nii ma sañ naa takk soxna ci lu duwut can kon tamit yeneen yonantu yi mën nañoo takk soxna ci lu duwut can ba ca tegu tamit nag lii dafay wane ne xéewal yépp kenn mënu caa jot mu xegsi ci yow loolu julloo ci yonantu bi junne yonantu bi daal mooy bi juy hubbi xéewal yépp moo tax ba mu ci yonantu bi rek ci la xam xéewal ak soxna moom lañ ko canalee kon nag iblis a aadama ngoog yàlla nag di ca tofal tabarakallah tabarakallahu ah, ni iblis yakale ko wa yakal go xamne timit non la ko yalla namé won bo démé borom xam-xam ni dañuy wax né ab yununtu mën naa ab yununtu mën dafa faté rek wala qad aina ila adamin qablu fa nasiya daloon na yununtu bi julli na tusubar mba takusan ñaari musalman fu di ne ko dañoo wàññi julleem wala yow yaa fàtte ak xusirati salaatu am na siita yonent bi ne ko kullu zalika lam yakun mu ne ko kay fa qaala bal am na ci yonent bi nag wax na ci beneen hadis ne fàttewuma waaye dama doon fàtte naa maanaam waaye dama koo def ngir xikmatu ñu sunnaal mooy ñu jàngale ko ndax yonent bu jamono julli ñaar rakkaa sëlmal ko ko def fooy fooy su jootee juróomi yoon la jamaat bi ben la ci motax mu ne lam ansa walakin umsiya li li li usanna ngir ma yoonal kese lo rek tax bu taw taxutoon du am de kon tamit li ko dal ci julli ga modal adama ci garab gi te lol duñ ko ak yonantu motax da fay dugg ci rek xasnaatul abrar sayatil muqarrabin xoolal nak fatem goga tay ci la lekke garab ga wacci yonantu yaag waliyu yaag boroom xam-xam yaag àdduna beeg li ci taxaw lépp sama boo ca loola moom xam ngeen loolu am na njëriñ Xasaali gi doon wax ne Adama mos gi mos garab ga rek moo sabab xéewal gu rey gii wallaay su ma doon mën danaa lekk ba lekkaale ren yaa moom noonu la déggee moo tax ku ne Adama maanaam. ala kulli haal aadama mooy na yàlla comme ni nit ñi mooyee yàlla ñu dul yonantu te moom muy am maasum yéeféer nga déedéet waaye ku ko dàqal mooy nag yéeféer nga ndax yàlla na wa asaa aadamu rabbahu fa kon nag waaye boo ko askaneen dafa mooy yàlla ci tay du wut fàtte du wut juumte yéeféer nga soo ne mooyut timit mooy ak njuumte wala mooy ak fàtte xéeféer nga ndax yaxam alquran la ca wax loolu la jëlaal wax kon nag yaa ni aadama ee eh, yéen doomu aadama yi xadd ansal naa ca dëgg-dëgg wàccee nañ alaykum ci yéen libaasan koddaay bindal nañ leen koddaay yu waar yi boobu dana suturaal saw aatikum seen awra yi wërisan ak koddaay ak taar waaye nag wa libaasu taqwa ko daayal ragal yàlla zalika loola le moo gën zalika ragal yàlla googa min ayaati laahi dafa tukkee ko ci tegtal yi tegtale kartanal yàlla laallakum mastaleen yadakkaruna masta mastale mastale ñoom laallahum mastale ñoom yadakkaruna ñi mën a waaru ba mën a gëm yàlla yaa bani aadama yee yéen doomu aadama yi laa yaftinannakum bu mu sànk leen saytaanu saytaane bu leen ko topp dee kon da ngeen di échec kama axrajakum nam génnee woon abawaykum seen ñaari waajur yi muy aadama ak hawa min jannati ci aljana yan si mbir moomu dana dana dana ñori xanhuma walis leen libaasahuma seen koddaaya li yuriyahuma ngir mu won leen sawaatihuma seen awra ya innahu naka moom seytaane yaraakum mi ngi leen di gis fu ngeen man di nekk huwa moom laa wax wa qabiluhu ak soldaaram ya dafa caa bëgg a xata foo xabilu moo tax mu feñal xówa ji min foo xam ne yéen du ngeen leen gis ngir ak sew ak seen yaram ya ak bëri gi ñuy bëri ay kulóoru ay melokaan innaa naka ñun yàlla jaxal naa def nañ sayaatina saytaane ya awliyaa ñi nekk di ay noon ñi nekk di tamit ay ay soldaar yuy dimbalante li a fi ne ñeel ña nga xam ne laa yoruñu gëmuñ gëmuñ yàlla wa izaa fa'aluu bu ñu defee faaxisatan ak bokkaale ñoom ñu gëmul yàlla ñooña ak ànd ak di wër kaaba ga ànd ak raflewu bu di digg bëccëg bu bu guddi jotee jigéen ñi wër kaaba ga ànd ak raflewu ñu ne lii nag xaaloo ñu ne wajat naa fekk nañ alayha ci moom abaa naa suñ bàyya ñu roy ko ca ñoom wallaahu yàlla tamit amaranaa moo ñu digal bihaa ci loolu qul waxal yow yonantu bi ne leen inna laa naka yàlla laa yaamuru du digle bil fahsaayi ci lu bon attaqulu ndax da ngeen di wax xar laay waral yàlla maa laa taalamuuna loo xam ne xamu ko amara digal na rabbi sama borom bil qisti ci maandu loolu la yàlla digle ba tey tamit digle na wa aqimoo ngeen taxawal maandu ngeen ngeen jubale wujuhakum seen cëlmaa yi jëmee ko ci yàlla xen kulli masjidin ci bépp jàkka te mooy rek defetal leen ak sujjóot te yàlla tax wadduuhu na ngeen jaamu ko muxliseen mbir mi ngeen koy sellal loo ñeel ko diina diina ji walis bokkaale kama badaakum comme nam leen bindee woon du leen woon dara taxaw doona ngeen di delloo ci moom nekk way dund dekki yowmal qiyaam fariqan kuréel ci yéen hadaa gindi na leen moom yàlla wa fariqan kuréel xaqa xëy na maanaam alayhim ci ñoom adlaltu ak sànkote mooy ak réer innahum naka ñoom ittaxasoo jàpp nañ sayaatina saytaane yi awliyaa ñi ay xarit min dooni laay walis yàlla wa na ñi ngay njort ne annahum naka ñoom muhtaduna way gindeeku lañ de yooyu yëpp njuumte la kenn du yàlla yàlla rek a yàlla te yàlla rek moo jara jaamu moo jara topp kon tudd na koddaay doomu aadama kon boo jëlee riis xam nga riche moo doon tekki dunkal njanaaw kon mooy koddaayal njanaaw yére yi ñu sol ñun mooy suñuy koddaay yàlla nag ci mbaaxam mu may ñu ñaari koddaay koddaay goo xam ne dafay suturaal su awra yi ak koddaay goo xam ne dafay nekk eh, libaasu siina dañ koy taarloo ci feet yi tabaskee korite ak jumaa ak yu mel noona kon doomu aadama xam na ñaari koddaay koddaay boo xam ne yu waari sawaatihim ak libaas boo xam ne riche la yàlla moom mu namm ci maanaam taar boo xam dafa leen koy taarale bu ko ci xatafee waaye nag buy picc yi benn rek lañ xam ñun nit ñi nag xam na ñaari koddaay ci la borom xam-xam yi jëlee ci aaya ji ne gannaaw bi nga solee yére yu la mën a suturaal ba pare nga sol yére noos noos ci yére yu taaru te jubluwoo ci yéem sa bopp jubluwoo ca puukarewut dara nekkut ca comme ni nga xamee ne tamit ñagas ñagas lu ci koddaay bu suturaalee sa awra te dëddu àdduna rek a tax waaye feeñaloo ak dëddu ndax feeñal dëddu du dëddu loola tamit dara nekut ca su ko kubahla kon nak yalla ku bax la ku bëri yermande ñaar yoy lañu jox waye boy ab julit bu tedd gannaaw day lola yalla jox la libasu taqwa libasu taqwa na mo gëna for ndax lo fi sañse ci yere mu sutural sa awra taru ta xamo libasu taqwa bu yowmal qiyamé da nga rafle su ko defé ñu toroxal la futti la duggal la safara waye lo ñak ñak fi yere bo xamé libasu taqwa bu yowmal qiyamé da nga sañsé wu lolo nak yakarna mo upp solo motax mu ne wa libasu taqwa zalika khairun Abdulin nak ñaarel bu selale sax da nay bari am amna koddaayal ragal yalla amna na bakkan amna na koddaayal xol am na koddaayal ruux am euh, euh, euh, sirru ko dayal bakkan moy jëfee sharia ci def ndigle yi bàyyi tere yi mu sutural ci sutural sa awra bo xam yalla da fay tere lola feñ yow nak boba ko dayal sharia bi moy nga fexé ba lila yalla yàlla bu bum la fa gis lila yalla yàlla digal bum la fa ñak ko dayal xol moy ragal yalla ndax moy tere jaam bi ci soxlo lu dul ko dayal roh moy ko day go xam da fa koy tere muy gestu jëm ci kuduhul yalla kon nak deug deug ko day yi ku ca dayu dal deug deug gànjaro nga ku ñak yi nak xamoo dara kon nañ lu ba fexé ba am libasu taqwa te lool nak dalika khairun. la alquran wax su ko defé timit nak ay jëm ci tek ba yalla tontu nen inna allaha la ya'muru bil fahsha dafa leen tontu ci wax ju ñu wax ne wa ida faalu lu ñu def ci lu bon rek suñ leen yeddee rek ñu ne suñ bàyyee fekkoon ñu koy def te yàlla leen ko digaloon moo ñu ko digal ba tax na ñoom ibnu abbas mu ne araab yi dañ daan wari kaaba ga ñoom góor ña digg bëccëg fekk ñu summi seen yére ya nekk xawraay kese bu guddi jotee jigéen ña summeeku xawraay kese di wër kaaba ga buñ leen waxee ñu ne suñ yére yi ñu sol mooy ca yàlla duñ ko wëree kaaba gi fan ya ñuy xaj tamit duñ nango lek danaka duñ lek yap duñ lek gerees ñu ne dañuy magal seen hajga julit ñi nak hitte wo won bëgg leen ci roy nak yalla wàcce ay yene li ñuy def kën digul inna laa laa yaamuru bil fahsha moo tax imaamu junnay duyu wëlliyoob la shaytané mos na koo feeñu ko ne ko ya baax may sa borom gërem na la lima daganalon ci yow yëpp lima haram ron ci yow tay tay daganal na ko lu neex defal mu ne ko tukkal fi la bu bon bi mu ne ko noo def ba xàmmee ma mu ne ko inna laa laa ya'muru bil fahsaa'i xam naa ne yàlla mun du digal lu bon te yow nga ne lu bon lu ne mën naa koo def ak bi may ñëwal tamit da ngaa ñëwee benn côté leer yàlla moom xamul côté côté yëpp lay ñëwee ko defee nag foofa mu ne ko nag fii ma yàqal bëggoon laa yàqalee yàqal naa fi ñu bari mu tofal ke tamit ne xuzuu sunnatakum xuzuu sunnatakum waay waay yéen jullit ñi. sot su jël leen lu suturaal seen awra bu ngeen dem ca jàkka ya ak bu ngeen di wër kaaba ga dafay tontu gaa yéen waaye wër kaaba gi def awraay kese foo ko teg xudu zinatakum inda kulli masjidin lekk leen naan leen kon nañ fi bàyyi woon gerees geeg yàpp yoo tax mu ne wa kuluu washrabu yàlla lim bañ rek mooy yàq wala tusrifu inna laa yuhibbul musrifina loolu la bañ de waaye bu yàq amul dara newu ci nit ku nekk tamit ne la yàlla bindee woon nga rafle solo tubay sa góor ga kenn dindi ko. boo lëggee tamit noonu ngay dekkee doo sol tubay raflew loolu yëpp tabaarakallaahu sayyidatuna Aïcha ne ah yow yonantu bi pencam lëmm góor ak jigéen euh, euh, jaxasoo sol tubay xamut mbaa musiba du fa xew mu ne ko ni nga foogee mbir mi ëpp na ko de mas naa laaj yonantu bi ne ko waaw ndax àllaaxira nañ mën a toog penc ma di waxtaanante mu ne ko ñetti waxtu kenn du ko tal buñ buñ yëkkatee téere ya muy naaw jotagoo sa bos jotagut ken jotagut ken du tal ken bu naka nonu buñ la tegalé ci baskil bi war la pesé sa jëf yi peeseyaale la yaw ken. du tal ken naka nonu te boo waree jéggi sirat ken du tal ken ñetti waxtu yi ñoy ñetti yi ñoy yëgën a tiis yowmal qiyam yonent tu wax nako aisha kon nak alquran ngok motax sama borom tofal ca ne yaa bani aadama hee yéen doomu aadama yi xuzoo jàpp leen siinatakum seen taar te mooy jël leen suturaal seen awra yi inda kulli masjid yi ci bépp jàkk mooy bu ngeen nammee julli rek ak bu ngeen nammee wër kaaba ga la bëgg a wax wakkuloo lekk leen washraboo ngeen naan wala tusrifoo bu leen yàq innahoo naka moom yàlla laa yuhibu du yool musrifina way yàq ñi qul wax leen ne man harama anakan moo haramal siinatallaahi taarab yàlla alati taar ba nga xam ne axraja génn na ko li ibaade yi ñeel jaam yi ci koddaay wa tayibaate yu tey yi li risqi ci wërsëg xul wax leen na hiya moom loola lii la si na ñeel ñi nga xam ne amono gëm nañ fi layaati ci duniyaa bu jege bi waaye nag xaalisatan mbir mun koy way jagoo yowmal qiyaamati ko bi penc ñoom rekk koy moom kazalika naka noonu nu fasilu ñu bir ñu biralee aayaati aaya yii noonu naka kan li xawmi ñeel nit yaalamun moom danañu settantal xul wax leen ne innama harama daal xaraamal na rabbi sama borom fawahisha bakaar yu mag yi mel ni njaaloog sàcceeg lekk xal li jàmbur maa zahara la feeñ min ha ca ñoom wa maa batana ak li nëbbu lu mel ni soxor ak añaan ak yi ca xaju wal isma xaraamal na bàkkaar atful am atful xaas ala am la wal baxya xaraamal na tooñ nit ñi bi xëy xaq ci lu duxu dëgg xaraamal na tamit wa an tusriku ngeen di bokkaale billaay ci yàlla maa yu ni si loo xam ne wàcceewut bii ci moom sultaanan ci wenn lay ba tey xaraamal na wa an taqulu di wax an lay yàlla maa laa taxoon loo xam ne xamu leen ca dara di xaraamal lu mu xaraamalul waaye ngeen xam ne wali kulli ummatin ñeel na wépp xeet ajalun ab diir boo xam ne buñ ca yeggee rek danañ dee fa sa jaa bu dikkee ajalum seen diir ba laa yastaaxiruna déefut yéex déefut yéexe leen mooy du ñu yéexe saatan toll ni waxtu wala na du ñu jiitu tamit lu toll ni waxtu du avance du retard yaa bani aadama yi yéen doomu aadama yi laa dégg nga immaa yaateenakum de dikkal na leen rusulun ay yonantu minkum yu bàyyi ko ci yéen yaqusuuna yooyu danañu danañu nettali aleykum ci yéen ayaati sama ayi fa man ittaqa képp koo xam na teet na bokkaale wa aslaha mu xéwénal jëfam kooku de falaa xawfu de ragal xàlleen di nekk ci ñoom wala hum de ñoom tamit yasluuna ñuy jàq wala fi na ñi nga xam ne nag kazaboo dañuy fenloo bi ayat naa suñ kaawte fi wastakbaru ñu an haa walis ko ba gëmuñu ko ulaayka yooye gaay asxaabu naar ñooy mboolem safara hum ñoom xal du mooy bél lañ fii haa ca safara fa man amul kenn aslama ko gën a rëy tooñ man ci nga xam iftara dafa tuuxan laay wala yàlla kasiban fen di asa askane yàlla bokkaale di ko askane ay doom aw kazaba wala mu naral mu weddi bi ayaat yi ci kaawte fi yàlla yi di alquran ulaay ko yooye gaay yanaaluhum dana jot leen nasibuhum seen cër minal kitaabi ca lañ bindoon ca lawxul maxfuus maanaam dana jot leen ci wërsëg ak ci diir te mu naan bu diir ba ñëwee na xataa isaa jaadu ba xam ne dikkal na leen rusul naa suñ ndawi di malaaka yi ya tawa faw na mbir moom dana ñu faat leen yaquluuna wala xaaloo malaaka yak la ñuy wax ngi leen méttital ne ay na maakuntu an la ngeen nekkoon ta ta doona di ko jaamu min doon laay wali si yàlla xaaloo ñu ne dalloo loolu de na xan naa wali si ñu ñun de gisuñ leen sax wa shahidoo seede nañ ala anfusihim waral seen bopp cig dee ne annahum naka ñoom kaanoo nekkoon nañ kaafiriin di way weddi de xaale sama borom ne udxuluu tàbbi leen fi umamin ci mbooloo xad xalat goy na min qablikum ñi leen jiitu woon minal ji laa la ji jiney la wal in seeg nit ñi tool leen tàbbi fi naari ca safara bu ngeen fa tàbbee nag kullamaa daxalat saa yoo xam ne tàbbi na umatun mbooloo ci safara laanat rëbb uxtuhaa mbokkam ma nga xam ne fekk na ko fa ndax ñoo bokk ga ak ga xataa isa ko ba nga xam ne jotante na ñoom ñëpp fiyaa ca safara jëmeen ni mboole seen xaala wax uxraahum mu nga xam ne ñoo doon toppe li ulaahum ñeexal ñi nga xam ne ñoom dañ doon topp ne rabbanaa yow suñ borom haawulaa yi de gaa yi ñu toppoon addaluunaa ñoo ñu sànkoon fa atihim nang leen jox azaaban mbugal di'fan muñ fulul mu ne naari ko safara xaala sama boroom ne déeréet li kullin ñeel na képp kenn ci yéen ak ñoom di'fun mbugal muñ ful walaakin li fi nekk laa ya'lamuuna ñoom xamuñ loolu wa qaalat wax na ulaahum ña nga xam ne ñoom lañ toppoon li uxraahum ñi nga leen toppoon ne fa maa kaana nekkut lanaa di ñu ñeexal la ba fa maa kaana nekkut làkkum ñeexal leen xale naa ci ñun min fadlin ci benn ngëneel maanaam xamuñ ci yéen benn ngëneel ñoo ket maanaam da a weddi woon rek ci suñu sabab kon ñu a yéen ñoo xem ket fa zuuqoo mos leen al azaaba mbugal ma bi maa kon nekkoon ngeen bu na di ko fàggu de ne ñi nga xam ne kazaboo dañuy fenloo bi ayaat naa suñ kaafte yi wastakbaroo ñu rëylu anhaa walis ko bëgg muñu ko laa tuftaxu dee fut hubbilu lahum ñeel leen abwaabu samaa yi bunti asamaan yi pour seen roox yi di yéeg du xam de walaa yadxuluun duñ tàbbi mukk jannata aljanna xataa yalija ba ta tàbbee aljamalu gëléem fi sammil xiyaati ci bën bën a puso bën a puso bën a puso bën a puso